mon premier mandat, qui finira en février 2019, plus précisément en mars-avril 2019. Nous avons, il y un an, engagé une euh, réforme majeure de la Constitution par voie référendaire. Justement, c'était pour arrêter le débat que nous avions une majorité totalement qualifiée au Parlement, mais nous avions choisi de consulter directement le peuple sur une réforme très sérieuse, très constructive, très consolidante de la Constitution, pour régler principalement la question de la durée et du nombre de mandats du président de la République, ainsi que du mode d'élection. Cette question a été définitivement fixée dans cette Constitution. D'ailleurs, en 2016, ce dont il était question, c'était moins le nombre de mandats que la durée. On devait passer du septennat au quinquennat bloqué. Mais le nombre de mandats s'est réglé depuis très longtemps, c'était deux mandats. le nombre de mandats n'a pas été modifié. Pourquoi engager une discussion sur un débat de 2024, euh, un débat qui n'a pas lieu d'être, puisque je suis dans la logique de ne pas dépasser deux mandats sur le peuple sénégalais me fait confiance en 2019 donc ce débat on ne doit pas nous faire perdre du temps voilà ce que je voulais dire sur ce point ñaan yàlla mu jàppale ma léegi loolu bu amee ah, ñaareeli aspect bi fàtte naa ko sax ndax dañ ma dog deuxième et dernier mandat oui c'est clair que constitution bi man maa ko bindul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 le président de la République est élu pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Je vais répéter la phrase. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Je vais répéter la phrase une troisième fois. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Est-ce qu'il y a place à interprétation? Souffle démocratique bu ci ay intervalles yu xaw a am solo. et sur les standards des démocraties modernes et puis nekk sur les standards des démocraties modernes. te 5 ans pour ñun jàpp nañ ne 5 ans wax dëgg baax na surtout bu dee 5 ans yoo xam na nga dolliwaat beneen mandat muy muy muy 10 ans. 10 ans maanaam nit mënatul toogati fii. Sénégal lu ëpp 10 ans bu aayee ba aay bu aayee ba aay day def 10 ans. 10 ans dem yoonam dem yoonam waaw léegi. foofu nag la coow li nekk. Mhm. mandat Macky Sall bu sept ans bii. Mhm. bokk na seen décompte am déet. mandat wu président Macky Sall bu sept ans bi. bu sept ans bokk na ci décompte bi. kon ça veut dire que Macky Sall amul beneen droit. lu dul beneen mandat amul beneen droit. bu dul respecter li nga xam ne moom la constitution bi wax constitution bi dafa ne nul ne peut de deux mandats. bii ba xam nga lan mooy différence bi autant chez chez avec le président Wade amutoon limitation mais autant président Macky Sall bi muy ñëw fekk na Abdoulaye Wade dugaloon limitation. donc moom ba muy def. prestation de serment en 2012 xam na déjà que mandat bii mu toog yoon benn yoon la ko may mu renouveler di le mandat du président est renouvelable une fois. donte conseil constitutionnel wax na li mu wax. déggu rek le mandat la wax. dama ne conseil constitutionnel dafa wax ko mënoo ko wàññi ci limitation bi. Hmm. waaye conseil constitutionnel waxut ci que mandat bi euh, duñ ko renouveler renouvellement bi donc li li. con euh, constitution bi président defoon prestation de serment. Mhm. def ne le mandat est renouvelable une fois donc bi président di def prestation de serment xam na ne prés kon mandat boobu c'est renouvelable une fois modification yi mu def nii def ko sax gën a dëgëral parce que def ne kenn mënut a def lu ëpp ñaari mandat mandat bi nga nekk dañ koy renouveler ak kenn mënut a def ñaari dañ koy renouveler benn yoon ak kenn mënut a def lu ëpp ñaari mandat yaakaar naa ne benn kaddu gi la donc président Macky Sall. amut pexe bu mu fi war a mën a génne bay xalaat sax ne dafay jéem a dem deuxième mandat parce que constitution ba mu 2001 bi. tere na ko constitution bi tere na ko te ci la waatoon en 2012. constitution nga xam ne bii moom la ñu bëgg a modifier également. ce qui s'est passé c'est quoi tout à l'heure on a parlé du mandat on s'est rendu compte que le mandat variait. Hmm. on a dit on stabilise. donc on a ajouté la durée du mandat. deuxième chose qu'on a ajouté pourquoi on a ajouté par exemple le nombre de mandats là aussi même

des mandats présidentiels. Peut-être qu'il a d'autres pays on n'en a pas besoin. Les Allemands, par exemple, ne limitent pas leurs mandats. Les Anglais ne limitent pas les mandats. Mais nous, dans notre histoire, on a considéré que c'était important. C'est pour ça qu'on l'a verrouillé. Et donc, voilà pourquoi il y a, euh, outre la forme républicaine, il y a la durée du mandat maintenant, il y a le, euh, le nombre de mandats. Mais il y a aussi... mandat bay ñew la mëna nek def nekk juróom-ñaar bu njëkk bi ndax mënu koo wañ ca bokk ci ñaari màndaay yi ñu wax ko mu leer amul ñett amul ñeent amul ñaar ak genn wàll amul may ma ñetti at ma terminé samay chantier wala loolu amul loolu moom amu fi amatul loolu moom amu fi amatul dem ba ca biir may ma at ma terminé jumaa ji ma doon def fii loolu amul ku def fukki at dem loolu daal la fi at yéene bi nga xam ni mooy gàttal mandat bi yóbbu ko juróom-ñaar indi ko juróomi at te kenn dootu ko laal mi ngi ci biir donc amul troisième mandat amul dara ndaxte ca wàññi ba ñuy wàññi pour xam ndax ñaari mandat yi am na bii muy def nii ci la bokk donc loolu dama bëgg Sénégalais yi ko bu baax amul risque troisième mandat wàññi bi bii bokk na ci ñaareel ba muy diir mooy mekk bu mujj donc loolu war nañ ko dégg. dafa wax ak askan wi nañu danaa leen jiite waaye julli ñu ñaari rakk la ñu ne ko d'accord nañu ku ne xam na ne tabaski ñaari rakk la rakk day nekk juróom-ñaari kàbbar mu nuroog nag mandaam bu njëkk bi di juróom-ñaari at rakk ñaareel bi war a nekk juróomi kàbbar moom am mandat ñaareel muy juróomi at waaw bu paree lu mu ci nekk asalaamaaleykum moom nee na du sëlmal nee nañu ko ko subhanallah imaam ne du dégg imaam subhanallah mu du ma dégg damay kabarat non pour un troisième mandat du mën a nekk kon nag ah